salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di siyaaraat bu baax a baax di ñëwaat suñu vidéo tey di wax ne ba tey ñoo demaat suñu seen YouTube rek foofu la vidéo yi eggee mu nekkaat wàllu tabdil boo xam ne dañu leen koy indilaat maanaam tabdil mooy weccee weccee xaalis ku bëgg xaalis bii nag maanaam ñaari conséquences yi la am somme bi li ñu ci def bu mu ko paase muy 600000 francs bu mu ko paase beneen conséquence bi mooy bu ko liggéey ñaari yoon ci at bu ko liggéey ñetti yoon ci at mi soo ko liggéeyee bala nga koo liggéeyaat na nga toog 6 mois yu mat soo ko liggéey. liggéeyaat maanaam boo ko liggéeyee eh, ci mois bii na nga toog 6 mois mat sëkk soo ko liggéeyaat ñaari at at mi daal ñaari yoon nga nga am sañ-sañu liggéey ko ci mais amoo droit liggéey ko ci ñetti yoon kon mi ngi nii léegi nan lañ koy liggéeyee da bind baat bi ñu gis nii lii allahu xayyun qayyumun fi jidia moom ngay bind 353 nga bind ko ci feuille blanche boo ko bindee 353 ba pare nga bind xaatim bii comme nii ñu ko bindee nga bind xaatim bi boo ko bindee comme ni ñu ko bindee gis nga baat bii muy baatu allah bi moom ngay dugal fii ci baytul xaal bi nga tijj ko dugal fi som bi nga bëgg 600000 francs yi boo bëggee lu gën a néew nga dugal 400000 100000 50000 ba 25000 bu la neexee mais bu mu passé 600000 bu mu passé 600000 bu passé 600000 conséquence am na ci boo ko liggéeyee ñaari yoon ci at mi conséquence ñetti yoon ci at mi conséquence am na ci kon ñaari conséquence yooyu la mais amul beneen lor. léegi nag boo ko bindee nii ba pare ci feuille blanche mbind mi ak xaatim bi yëpp da wutaat beneen kayitu 10000 beneen kayitu 10000 ngay wut nga bind ci xaatim bi nii kese xaatim bi doo ci bind mais xaatim bi nii kese nga ciy bind nga jël benn sijaada bi ngay toog di wér di nga jël kayitu 10000 bi nga dugal ko ci ron sijaada bi boo ko dugalee ci ron sijaada bi nga wut libaanu zakar libaanu zakar moom ngay wut boo nga indi ko sa kër léegi dimanche ci guddi nga koy commencé dimanche ci guddi looy def da ngay jël saafara sii saafara si nag boo ko xoojoo ba pare danga nga def ñetti yi mboq ak dugub ak gerte lu ci nekk nga wut juróom-ñaari pepp def ko ci ci saafara si dimanche ci guddi nga dugg fenn fu set fu laab bu mu doon toilette sa néeg yooyu nga sangoo saafara si boo sangoo ci saafara si ba pare nga génn ñëw toog ci sijaada bi sol sa yére ñëw toog yére yu weex taar nag ngay sol doo sol yére yu xonq doo sol yére yu ñuul mais yére ngay sol bu la neexee nag tubéy ji mën naa doon beneen couleur mais yëre yi moom mbu mi moom yëre bu weex lay doon te na doon bu gudd boo xam ne tubéy ji bu doonul beneen couleur bu doonee beneen couleur bu mu feeñ nga ñëw toog boo toogee léegi après nga taal cuuraayu libaanu sakar boobu noonu boo ko taalee taal ko lu tolloog ay 5 minutes 10 minutes nga bàyyi ko muy saxaar ba néeg bi xeeñ xunu cuuraay la nga soo a jël sa kurus daal di wér baat bi toog ci kaw si jaar bi nga xamante ne fi nga roof 10 minutes wér di baat yi allahu hayyun qayyumun fii jiitiha 353 soo ko wérdee 353 ba pare nga jël sa kurus teg dem altine ci guddi nga ñëw jëlaat saafara si sanguwaat ñëw taalaat cuuraay li ba néeg bi xeeñ xonn sol sa yére yu weex comme ni ñu ko waxee woon jëlaat sa kurus defaat 353 allahu hayyun nu fii jii di jidiha mardi ci guddi nga ñëwaat euh, mercredi ci guddi euh, jeudi ci guddi vendredi ci guddi samedi ci guddi yëpp nga ñëw boo ñëwee jaaraat fi nga jaaroon boo ko defee samedi boo wérdee ba pare ci guddi gi nga bàyyi mu fanaan boo xëyee suba teel dimanche nga ñëw yëkkati fi nga tegoon 10 bi nga xool boo yëkkatee fi nga tegoon 10 bi incha allah somme bi nga defoon ci xaalis bi di nga ko fekk foofu noonu mu tege some boobu nag xaalis bu lew la boo xamante ne mën nga cee jënd mën nga cee def lu neex tey di def dara waaye boo ko liggéeyee bu ko liggéeyaat fii matul 6 mois bu ko liggéeyaat mu waxaat ko encore fii matul 6 mois bul ko liggéeyaat. Hmm, ya naa lerna na nañi eh, am na yaakaar ne lépp duñ ci wara lerna leeralaat dara kep ko xamne lañ ci wax amna leneen lu ci intéressé lu ñu waxut hmm, nga wax ñu ko ñu dégg inshallah allah ñu tontu la ci commentaire yi eh, nii ngay bind Allah hayyun xayum fi jëlee 353 bind khatim bi ci foy balance def ci gerté ak mbokk ak dugub def ko safara diko sango jëlaat xaatim bi bindaat ko ci benn kayit dix mille teg ko wut libaanu sagar comme ni ñu koy waxee ak yére bu weex moom ngay sol ba wér taal cuuraay li jël wér lii comme ni ñu ko waxee som boobu lim boobu noonu ba mat une semaine xaalis bi nga xamante ne moom nga defoon ci som boobu noonu bu soobee yàlla incha allah di nga ko fekk ñu ngi jégaluwaat bu baax a baax nag di wax ne ñu ngi leen di bu baax baax jërë ngeen jëf tawfeex di wax ne nag wax dëgg yàlla jot moo xawut am rek fan yi moo tax suñu vidéo daanaka muy xaw a tardé waaye ñu ngi si jégalu bu baax baax suñu sañoon sax suur ngeen jëriñoo suñu xam